lecture bu ñu mën a def sur des positions yi nga xam ne jot nañ ci euh, lu yàggul dara muy euh, ci heure yi nga xam ne ci lañu génn bokk na ci la position du parti démocratique sénégalais bi nga xam ne euh, am na ñu mu bett am na ñu mu bettul parce que le parti démocratique sénégalais qui soutient la coalition Diomaye am na ñu ne scission la am na benn pàcc bu nga xam ne ñoo dem am benn pàcc bu nga xam te ne nii beneen pàcc bi. Idrissa Seck loolu yëpp bëgg naa ñu jàngat ko et surtout la décision du président de la coalition euh, gëm sa bopp muy Bougane bi ñu doon xaar parce que moom rek a fi desoon moom it joxe na position que libéré na ay militants ko ku neex na votel mais surtout surtout mi ngi joxe rendez-vous au deuxième tour. naka nga ñuy analyser loolu très rapidement. ci bala ñu ci sori. Mhm. Euh, le corps enseignant. Mhm. man man personnellement sama conviction. mooy jàng ak jàngale secteur de la santé justice ak défense kenn waru leen boole ci politique loolu laa gëm. Mm-hmm. et waruñu am revendication ndax lépp dafa war a daje ci ñoom parce que réew boo ko bëggee rey am na réew yu am petrole am na réew yu am gaz mais ils ne sont am na réew yu amul pétrole amuñu gaz nekk en voie de développement. par exemple Corée da nga koy mën a citer xam nga lan lanu naan boo ko rayee ci réew ray nga réew ma mooy le système éducatif il faut un système éducatif parfait performant mu commencé ci kiy jàngale qu'il soit dans le cadre dans les conditions yoo xamante ni si du am problème mu avancement du am problème mu intégration du am problème mu ay ay alignement par rapport aux indemnités ah cadre bi xale yi war a jàngi defar ko ci lu wér a bu ko defee coowal politique ak yu baree bari warul leen ci di tudd et je le déplore d'ailleurs qu'on parle des enseignants de tele parti et de tele parti mm-hmm. en toute sincérité euh, bu nu ñëwee nag ci wàllu alliance yi nga xam ne am nañ ko surtout bu PDS bi nga xamante ni ils sont partis se joindre à la coalition Diomaye c'est acceptable mm-hmm. da nga koy nangu parce que le, euh, la coalition Diomaye ou le parti Pastef a une partie de la trajectoire du PDS bu dee da ngay xool ci wàllu politique parce que parti bi pour mu taxaw ci xeex ak jàmmarloo ak le régime de sengor le régime de wadd moo ko le régime de Diouf moo ko tax mu taxaw et ce sont des démocrates jusqu'à la moelle parce que tey journalistes yu bari yoo xam ni ak ay chroniqueurs yu baree bari je peux les appeler ainsi qui tiraient sur euh, le PDS bi PDS jëlee benn décision aujourd'hui tey ñoom ñëpp ils se sont pliés d'autres même dañu faf muuma mënatuñ wax parce qu'ils ont longtemps tiré sur le PDS parce que PDS a engagé un combat légal et légitime ci lu baree baree bari avant les élections et bi nga xamante ni si ñëw nañu y a combien de candidats yoo xam ni mën nañ ne ay ay libéraux ñu tu par de Mohamed Boun Abdallah Dionne il a été le premier ministre de Macky Sall je pense 2013 ba 2018 euh, période yooyu la Macky Sall doon wax je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression et je n'ai qu'une seule opposition c'est le PDS secouer le PDS martelé leen seen candidat mu teg ko ñetti ati juróom benn weer et c' était Mohamed Boun Abdallah Dionne qui était le chef du gouvernement qui pouvait remplacer le ministre de la justice en cas de démission de fait donc c' était lui le chef du gouvernement le chef du ministre de la justice. Mmh. Mmh. boo xoolee digganteem ak Idrissa Seck. Idrissa lorsqu'il a quitté la coalition Benno Bokk Yaakaar il il a craché le feu chez Wade et le PDS. ci mun naa ko wax parce que responsable moral yi la visé directement. kon lan la ñu mun a def répéter la fameuse phrase de Abdoulaye Wade bi ñu defee intercoalition bi bu ñu bàyyi di taqali li nga xam ni moo ñu boole ngir njariñu démocratie pour être cohérent et pour être cohérent aussi ci li ngay xeex muy rétablir la justice et la paix parmi les candidats gis nga ci candidat boo xamante ni si taxawaay boobu la am et comme il l'a écrit nee na le candidat les candidats l'ont appelé il s'est entretenu avec Khalifa Sall mais Khalifa Sall est un socialiste te lorsque maintenant que des unions se fassent au-delà des idéaux maanaam ànd yoo xam ne dafay romb les doctrines politiques dafa am tamit benn fibre boo xamante ni si moom la ñuy xool ci biir boo xam ni moom mooy motiver lii parce que tey moo ngi koy wax sànq quiconque se joigne à une coalition dafa war a am motivation boo xam ni dafay découler ci programme bi donc tu peux dire que le PDS dafa boole li ko neex ak li ko naqari lépp hmm. parce que une dame comme Mimi bu jàmmarloo woon ak ñoom démb ci position yu baree bari tey mu ngi foofu noonu mais dañu jël li leen neex ak li leen naqari yépp teg ko de côté daal di dem léegi la réponse de dire sur où hmm. c'est des réponses waaye fan koy jëlee fan nga déggee wax jooju hmm. ban média bu ñu la waxee ni la média sunu confrère Madiambal tu sais que média boobu noonu Madiambal il travaille dans la communication de Amadou Ba nëbbu ko c'est son ami la communication. mais quelqu'un comme Abdou Thiam. waa waa ba j'y vais damay dem damay ñëw. damay bi def déclaration pour soutenir Amadou Ba. effectivement oui la base aussi est-ce que est-ce que maîtriser nañu leen. ci ci euh, mouvance boobu PDS bëgg euh, ci jàppale coalition Diomaye. damay ñëw si foofu. bu dee les départs yi nga xam ne Abdou Thiam ak le député woon def nañu ko le Pastef. depuis Fara Ndiaye. Euh, père de Sebet Ndiaye. bi nga xam ne Abdoulaye Wade bi mu amee deuxième mandat sa maire magistrate Mireille Ndiaye bokkoon na ci ñu ko installé. dafa quitter le PDS rejoindre ji le régime euh, nga dem Serigne Diop Sadakhta a fait la même chose il a presque xëcc. ossature PDS bi nga demaatee ba ci kanam tuuti tu as vu les Ousmane Ngom dans le gouvernement élargi c'était la même chose bi ñu demee ba ci élection yu après que le président Wade que Bougane a récité ce que Wade avait récité mais seule différence euh, président Wade waxul woon deuxième tour dañu mën ngeen a woteel ku leen neex ba mu des président Macky Sall ak Madické Niang mm-hmm. donc ñoom ñu wëlbati ko dem rejoindre ji Macky cela veut dire que le PDS a toujours ya lay photo départ ya mooy départ ya du yóbbu base ba parce que élection bu amaatee conquête de base boobu noonu da koy réaffirmer donc il faut comprendre que euh, loolu ñu naan sukk terewut a yóbbaale say euh, terewut a yóbbaale say oom. Mhm. Euh, oom du booy leex looloo dal député yi nga xamante ni ñoo jógee PDS dem la base reste intacte tey jii bu suba bu élection amee. incha allahu rabi tu vas voir la base qu'ils avaient est ce que dafa leen di rester fidèle wala dafay wuyu ñi nga xam ne moo ci nekk. pour ñëw nag si la position de Bougane. rapidement ñu voilà c' une position normale pour un leader qui a une clairvoyance et nga am jaar-jaar ay candidats lañ ak yow position bi nga xamante ni moom nga amee il ne faut pas omettre la provocation ce qui a valu les candidats dits spoliés bañ yegsi c'est un politique et quand on de politique on fait référence à la science c'est une science ça s'apprend dafa am nooy analyser le contexte ak taxawaay boo ci am ce que je le point euh, auquel je ne suis pas d'accord moo Karim Wade ñoo ko bokk nee nañ élection yi kenn mënu ko gagner au premier tour faaw ñu dem deuxième mm-hmm. de bonne communication loolu laaj. mi ngoog dañuy dem marquer une petite page de publicité puis